bismillaahi rahmaani rahim seen mbokk la Bathie Touré ñu defoon marsiya jëme ko ci sëriñ Aatu Jaañ yàlla na ko suñu borom dolli ay ngërëm te boole ko sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom doon liggéeyal bismillaahi rahmaani rahim jey àddina war nga nu jël nga sun waajaati sëriñ aatu jaañ dem na ni fun koy jëlee teeti cey àddina war nga nu jël nga sun waajaati sëriñ aatu jaañ dem na ni fun koy jëlee teeti cey àddina war nga nu jël nga sun waajaati sëriñ aatu jaañ dem na ni fun koy jëlee teeti ka daan liggéeyal sëriñ Tuubaa musul ci xam-xamam ak xelam fi kulli awqaati seex abdulaat gërëm la na laa doxal jiite kasaaka seex saalimu defoon la nag féete alaaji baara fadilu gërëm yu rëy xóoti kasaaka siidi muxtaar jaajëf aatooti sëriñ Muntaxa xalifa looroot fa ngay sooti tey ñàkk na aatu jaañ xelam du fàtteeti sëriñ Muntaxa xalifa looroot fa ngay sooti tey ñàkk na aatu jaañ xelam du fàtteeti sëriñ Muntaxa xalifa looroot fa ngay sooti tey ñàkk naa aatu jaañ xelam du fàtteeti yoonu murid dul la fàtte mukkooti daagul nga woy tëdd tey fa say xubambaati masamba tuure sotal xalima muslooti taxaw fi bassa rom ngooñ dal nga del